asalaamaaleykum euh, mbokki Sénégal rawat ñu nekk bitim réew ñu nekk ci fukki diwaan yi ak ñeent ñu dellu di leen nuyu ci jotaayu taalif da ngeen baaxoo nag di gis saasu ne ñi nga xam ñoo di kilifa yi. waaye tey kenn ci bindkat yi nga xam ne ay soxna lañ dañ cee fas yéene dalal kenn ndax ñoom bari nañu ndax boo ci xoolee ki nga xam ne moo di soxna Aram Fall ku ci mel ni soxna Koura Sarr ñu di ay ndaanaan waaye soxna. Kiné euh, fay moom moo bàyyi koo tëngee tey ñu fas yéene ko dalal balaa ñu def leen dugg ci waxtaan wi dañuy ànd ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu xarale gi mhm. ñu daal dem ci gëstu bi nga xam ne def nañ ko ci yow dellusiwaat GANÉ aduna ci 1958 Fatou Babou ñukay woyé ki né diku ku fonk lool gëstu jëm wàllum jangum ci atum 2000 japp 2002 def na formation ci socio alphabétisation ci atum 2001 def na formation ci nouvelle méthode jëm ci jangalem kàllaamay ci atum 2004 ki Babou def na formation animatrice ci 2003 ba fim mu toll ni tay ma nga ca bu joko FM ci atum 2004 def na formation ci méthode ak participation ci yëpp jëmtukaay yooyu tax nit ki mën a dégg kàllaamaam ci atum 2008 def na formation communication ak plaidoyer ci Thiès ci atum 2009 animatrice ci Enda Ecopole ba tey atum 2009 Bobé, def na formation technique d'animatrice en santé communautaire cadre de vie et environnement Fatou Kiné Babou dina wax français diko bind naka noonu di wax wolof ak diko bind Fatou ñu koy wooyee Kiné baabu mooy ganuk émission taalif ci seen télévision DTV. ah ginnaaw euh, gëstu boobu. nee nañu tungu ni du teew ñu ut nataal. dëgg la soxna si. gars topp nañ la sa jaar jaar. ba jaar jaar boobu lan nga ci mën a dolli ndax xam nga nit ki moom loo ko xam-xam mu gën laa xam boppam. Mhm. dëgg la sëñ laay jaar jaar yi defe naa ni mën nañ ci wax lu bari. Euh, ndax li nga xamante ne moom indi fii tey euh, muy ci mbindum wolof mi. yàlla dafa def bi ñu koy door. booba dafa fekkoon ñu yor daayira euh, daayira bi ñu yoroon nag ñu doon ci jàng ay xasida di ci bind ay olofal di ko jàng euh, yàlla def nag comme suñu xam-xam ci wàllu arxuraan bi soriwul ñu ni lan moo tax du ñu dem nag jàngi li nga xamante ne mooy alphabétisation ngir ñu mën a euh, tënk bu baax li nga xamante ne moom la ñuy jàng ci wolof bi wala ci xasida yi bu yàgg bi li fi amoon nga xam ne ku ci mel ni Cheikh Anta Diop ku ci mel ni dem si yàlla professeur Saliou Kandji uh-huh. ku ci mel ni ñoom Sakhir Thiam sëñ Sakhir Thiam ak Cheikh Aliou Ndaw uh, ak ñeneen gës nañ ci ndaxte bu ñuy wax maanaam wàllu alphabet uh-huh. nga xam ne boo jëlee uh, fanweer ak juróom benn loolu nga xam ne moo di li wax lettre uh-huh. ci wàllu tubaab ñu am alphabet français ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu arab ñu am ñaar ak juróom-ñett ci ay baat mhm. wolof nag fexe nañ ñoom ba am seen mbind moo xam ne ñoom ñoo ko mën naa moom ngay wax noonu bind moo xam ne nekkatul wolofal am da ngay jël wolof bind ko ci wàllu yi arab waaye dañ koy bind ci wolof daf naa loo koy wax waaw moom laay wax waaw nga xamante ne yax bi day nekk daanaka mook yaxu français bi ñooy ñooy ñooy nuroo mhm. waaye nag njàngin mi dina wuute ci loolu nag la ñu sukkandiku woon doon ci jàng ay xasida ah, bi ñu yàlla jàppalee itam ah, bi ñu koy door waa édaction ñoo fa woon ah, bi ñu ñëwee itam ñu di ñu jàngal jàngal nañ at ak genn wàll. at ak genn wàll. genn wàll jàngal nañ ñu ko yeneen nattangoo ay jigéen ay góor sax amoon na ci ñu yëngu ci li nga xamante ne mooy njàngum alphabétisation ah bi ñu ciy jàng yitam yàlla def kenn ku ci nekk dafa am fu fu yàlla jaarale say mbir. ñun ci loolu la yàlla jaarale ginnaaw bi ñu jàngee ba noppi ba jot suñu lijaasa yu jëkk ah, ñu ne nag nañu taxawal suñu kuréel kuréel googu ñu ngi ko tuddee kuréel gi lawal làkki réew mi. lawal làkki waaw. muy kuréel la goo xamante ne lépp loo xam ne ñu ngi ko fay def. la ci ëpp mooy jàngale làkkum réew mi di ci bind ay téere ah, di ci bind ay eh, li nga xamante ne ay taalif di ci bind ay cax. di ci bind ay togg yooyu yëpp xeeti togg yoo xamante ne cosaani maam yi yooyu yëpp dañ ko ci dañ ko cee def ñu tàggat ñu ci lu bëree bëree bëri ci làkk yooyu yëmul rek ci wolof bi pël bi mu ngi ci waaw pël bi mu ngi ci séréer bi mu ngi ci waaw joolaab bi mu ngi ci mu ngi ci ndax suñu kàggu ga ñu yore euh, soo fa demee am na ay euh, téere wolof am na pulaar am na séeréer am na joolaa ah, am na soninke yooyu yëpp mu nga fa maanaam boo nee kàggu waaw mooy li ñuy wax bibliothèque bibliothèque waaw waaw ñu bibliothèque kàgg googu bi ñu jëkk am ñu ngi ko tuddee ajaar Nene Diop di doomi ajaratu Faat Seck ndëppkat bu Tëngéej moom lañ ko tuddee ndax dafa nekkoon suñu mag moo xamante ne daf ñu doon jàppale ndax seen kuréel gi nga xam ne moom la ñu tuddee woon sopp njoora ci kuréel googu ñun ci la ñu sox ñun nekkoon ay tuut tànk ci seen biir bu ñu demee nag ba ñun ñu jàng ba noppi nag ñu taxawal nag suñu kuréel googu nga xamante ne njàng njàngaan soo mokkalee berse daara mu loolu moo ñu indi ci lii tey Euh, ñu def ci ay jéego yu bëree bëri tàggat ci nag ñu bëri taxawal ci ay kuréel yu bëri itam ci suñuy moromi jigéen yi ak ci xale yu jigéen yi euh, taxawal itam li ñuy wax centre de lecture muy kàgg goo xam ne soo fa demee tubaat fa kàlla yaa ngi fekk xale yi ñoom ñëpp ñu ko fa di ca jàng ñii ngay jàng ñaw ñi ngay jàng ràbb ñi ngay jàng cuub euh, ba yàlla def tey ji ñu bokk ci conseil municipal yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune est ñu jël commission bi nga xamante ne moo jëm ci maanaam mooy ñiy nas di nocci ñiy nas di nocci ci langue politique ci langue politique maanaam sës ki nga xam ne moo di mu nga noonu jëwriñ dañ fa teg muy maire bi mhm. ñu ko sës di nas di nocci ñooy li ñu woowee conseil mu ngoog ñooñu la ñuy woowee conseil ñu dénk ma kuréel gi nga xamante ne mooy kuréel gi yëngu ci wàllu alphabétisation wàllu njàngale mi njàngale mi njàngalem làkku réew mi njàngum làkku réew mi waaw ngir gën koo mën a suqali ba ñëpp mën caa jot kuréel googu la ñu ma dénk tey jii euh, tax na itam ma nekk ci benn rajo nekk fa di fa waxtaan di fa yee suñu moromi jigéen yi di leen yee ci njàng mi waaye di leen yee ci itam ci seen nekkin seen biir àdduna loolu daal bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy dolli ci li nga xam ne mooy suñuy jaar-jaar waaw jaar-jaar laa ci laaj du gàttal foofu laata ñuy waxtaan wi mhm. tàmbal nañ sax waxtaan wala ñoo xóotal ni ko wala fi di waxee maanaam léeg-léeg nga am loo boo day sa xol du wala sa dina gën a naat mhm. sa jaar-jaar waaw samay jaar-jaar euh, li nga xamante ne mooy ci li ma gën a neex mooy tey ndax fii ma egg si tey nekk conseil municipal dafa bokkoon ci suñuy bëgg-bëgg ba ñuy taxawal suñuy objectif ci suñu biir kuréel dañ ne woon dinañ ñu fexe ba di gunge jigéen ñi ngir ñu egg fa ñuy nase ak fa ñuy noccee kon su yàlla defee ci suñu biir am ci ñoo xamante ne yàlla boole na leen ci loolu bokk na ci loo xamante ne lu ñu neex la parce que suñ fa nekkee it dañ faa nekk ak suñuy nawle waaye dañ faa nekkal itam ñi nga xamante ne ñooy askanu Tëngéej dañu féete li nga xam ne nag ci sa euh, suñuy jaar-jaar euh, ñu am ci naqar euh, lu mënula ñàkk la parce que nit ki yàlla daf koy teg nattu ndax biñ ci nekkee booba dañ ci nekkoon ak suñu taaw ñu dem ba jëmmi jamono suñu boroom jël ko loolu itam bokk na ci li nga xamante ne naqar la ci suñuy jaar-jaar ndax bu ñu sañoon mu fekkee li nga xamante ne moom la ñu doon def mu fekkee njëriñ li ñu leen koy jaale. ñu waaw mu ngi noonu yàlla na yàlla yërëm mhm, mu ngi loolu daal bokk na ci li nga xamee suñu naqar la euh, te dañ koy sante suñu borom ndax yàlla su fekkente ne bu lay dénk doo ko yëg kon su koy jëlit na la neex. waaw bu nee naqar nga bëgg ci. Mhm. bu dee bànneex nga bëgg ci. nangu dogalam bi inna rabbaka fa'al li maa yurid lu ko soob rek mooy am. dëgg la soxna si euh, askanu Sénégal. buur laaw dafa sàkk ci àdduna sax lay wax. sàkk góor sàkk jigéen. dëgg la maam Adama maam Awa nekk ci àjjana ba nañ wàcc ci suuf. yàlla nag moo sàkk kii. mel ni ci der. kee mel ne ci der. waaye dafa mel ni day ku ñuul moom. yàgg na jamono xaa loolu waral euh, jigéen ju ñu jigéen jigéen jigéen jigéen ju ñuul. waaw waaw ko loolu moo waral ñu ñu ñu tëgg taalif ko jigéen ju ñuul. jigéen ju ñuul. waaw jigéen ju ñuul. ndax <laughs> ku ci am soxna soo xam ne ku ñuul la. mu ngoog na ko ah, téye bu baax naa ne war na laa <laughs> dëkk ay noppam. <laughs> mu ngoog daal di fas dugg jigéen ju ñuul. Euh, sëñ Ablaye kon ñu ñëw ci jigéen ju ñuul. jigéen ju ñuul sàmmal sa melokaanu der xamal ni mooy sab taar li ko dale fii ba wàllaa dex ñépp a ngi woy sa ñuulaay soo nee teqat ree sam ci ñuul kukk say gëñ weex tàll di sàmm wóoru ceeb jigéen ju ñuul sàmmal sa melokaanu der xamal ne mooy sab taar ngala bul dëggal kàddug noonu moom mi suufeel der bu ñuul ba tax fu mu toll di ko xeeb rax ci dolli di ko noot jigéen ju ñuul sàmmal sa melokaanu der xamal ne mooy sab taar bu dee ngi lëndëm te ne ràññ ak i leer bët bu doon lépp a weex kon gis-gisam néew kon jigéen ju ñuul sàmmal sa melokaanu der xamal ne mooy sab jigéen ju ñuul sàmmal sa melokaanu der ndax mooy sa taar xamal ne mooy sab taar xamal mooy sa loolu de dénkaane la dénkaane la waaw lu waral loolu waaw ndax dañu gis suñu moroom yi jigéen yi eh, da nga gis koo xam ne tubaar fa kàll dafay am ñuulaay bu rafet waaye ñu jékki-jékki gis ko mu xolli ko ba mu xonq jur lan moo waral loolu xanaa roy dàq xanaa loolu ñuy euh, boroom xam-xamu tubaab bi di wax naan complexe d'inférior d'infériorité mhm. maanaam xeeb boo xam na nga ko xeeb sa bopp xeeb sa bopp mhm. la ba gis ne keneen ku weex daal wala meneen moo la moo la gën a aha loolu loo xool la ci sa dëkkuwaay wala ñu war a jàgg jëflanteel lan moo waral daal nga jékki-jékki rek bind li waa dama koo xool ci suñu dëkkuwaay yi xam ne muj ga doon lu rafet ndax tey yàlla sàkk la jox la der bi am na ñoo xam ne dañoo xees pecc ñooña ñuulal luñ ko de. yow yàlla def la nga ñuul kukk nga am ñuulaay bu rafet nga war koo gën a sàmm nga nga fexe ba gàkkal ko gàkkal ko mooy danga ciy dem ba sa kanam nekk ay timpitàmpa lii ñuul lii lii yor couleur chocolat ah lii xonq

dañuy daal di dellu rek deltu ginnaaw tuuti. Mhm. ci nekkum nit ku ñuul ci àdduna. Mhm. ndax ku ne xam na ne maam Adama Awa. waa jóge nañ asamaan wàcc fi ñu wàcc loolu borom xam nañ ko. dégg la waaye Cheikh Anta Diop nee na. Mhm. l'homme a été aperçu pour la première fois en Afrique. Euh, ci fi nga xam ne maanaam nit ku nit ñu ngi ko njëkk a gisee. ci fii nga xam ne moo di euh, sunu dëkk yi muy Afrique. dégg la ci fan. diggante Kenya. Tanzanie ak Éthiopie. dëgg la. ñett ñi dund nañ fi balaa ba sàngoo suuf génn ñu ñeenteel ba juróomeel ba génn nañ ci dem ko waxee. Uh-huh. ñeneen daal di xuus jaar fi nga xam ne moo di Mauritanie. Uh-huh. dugg ci détroit de Gibraltar. Uh-huh. daal di bëtt Espagne dem Europe mu nekk l'homme de bi ñu fekk jamono glace gi ñu dugg ci euh, ci biir li nga xam moo di euh, euh, li ñuy wax grotte. maanaam yi nga xam ne moo di yenn xur yi ak yenn lëb bañ fa defee ay nangameet biñ génnee weex am karaw gu sax. ni ku ñuul. waaw xam nañ ne fii nga xam ne fi lañ njëkkoon nekk. Mhm. saxara mooy dex gu rëy googu. Mhm. bi mu ñiisee dañoo màngaat dëgg la di wër foo xam ne fa lañ mën a fekk dund fu mën a nekkee bañ yegg Égypte. dañoo mhm. fa lañ fekk loo nga xam ne moo dex googu ñu woowee Nil bi. dëkk fa nekk nit ñu ñuul. ba ci pharaon yu njëkkee fa nekkoon ku ci mel ni Ramsès II Thutmès III. José Ahmosis ba ci Nefertiti. ñooñu ñëpp mën nañ ne. ay nit ñuul la ñu woon dëgg la ki njëkk nekk buur ci kaw suuf mu di Narmer Menes mhm. nit ku ñuul loon te moom la njëkk a fal buur ci àdduna dëgg te Égypte googu Cheikh Anta Diop nee na c'est le berceau de l'humanité mhm. maanaam fi la nit soqe koo ngir àdduna dox wéy ba faaw ndax Cheikh Anta nee na ñetti nit yooyu njëkk nekk ci ni ñu ñuul ñi te génn ñu mhm. dund nañ ba làqu li ñu leen wuutale ak ñun mooy dund nañ ba jóge fii mos ñu fee tabax wala bàyyi fi loo xam ne wéy na ci àdduna di wéy ni nga xam ne tey boo demee Égypte ay pyramides yu mel yu Khéops Képhren Mérikuranos mastaba yi nga xam ne boo pyramide boo jël rek móol ba nekk na li ñuy wax tonne ci saay maanaam junniy kilo ñaa nga fa ba léegi nga gis ne buur bu njëkk ci kaw suuf bu ñuul la woon wax naa ko mhm. Narmemenes mhm. ku ne xam na ne ci wàllu faj li ñuy wax médecine esthétique tabaxaat doomu aadama ñoo ko njëkkee mhm. ku ne xam na tamit li ñuy wax hiéroglyphe maanaam mbirum bind ñoo ko njëkkee ku ne xam na tamit ci wàllu luxus ñoo ko njëkkee ci wàllu li jëm ci wàllu yox philosophie xeltu ñoo ko njëkkee nit ku ñuul moo notoon àdduna mhm. boo xoolee lépp loo xam ne tey am na ci àdduna nit ku ñuul daan na jëf lu ci ëpp démb dëgg waaye ñu dem ba mujj nag ñu ñuul ñooñu mhm. ñi nga xam ñoo di Hyksos yi bàyyi koon fi nga xam ne moo dili bi ñëw not leen daal di jaxasoog ñoom mhm. ba ñu xees tàmbali faam bi Romain yëgsee rey ña fa nekkoon daal di yàq bërëbu dëkk euh, yi nga xam ne dañ dencoon kàggu ya tas ko bindaat sos ay loo xam ne nekkul mhm. moo waral Égypte googu dem ba mujj ñu weex ña par ëpp ñi nga xam ne muy ñuul ci wàllu tënk rek mhm. defe naa ne kon li si am di wax naan mhm. ñun ñoo notoon jamono waaye ñun lañ not léegi dëgg la kon jàpp naa ne bu ñu gëstoo dama ci bañ a xuus lool ndax borom xam-xam yaa ngi may dégg ñu ci mel ñoom professeur Fallou Cissé dëgg la ci mel ñoom sëñ Saxir Thiam damay bañ a sori lool tarxiis ndax xam nga ne Sénégal boo fi wax moom dëgg la daa bari borom xam-xam yoo xam ñu ngi leen di bëggee ak ñoo xam ko ci mel ni dem si yàlla professeur Saliou Kane ko damay desuwaat rek mhm. di wax ne nit ñuul defe naa ne day ci ñu njëkk mhm. ci la bokk ci la bokk kon defe naa ne xees nag am na solo lool mhm. waaye ñu ñuul ñi ñoo jiitu ci ndax li koy dëggal mooy Abraha buuru Éthiopie boobu nit ku ñuul la woon dëgg la Bilal jamono yi Seydou Roudio Seydou Amsalaam sax nit ku ñuul la kon Dakar ñuul. Mhm. yàgg na te amoon na doole. dëgg la te lu ci bëri sunu maam yi ñoo ko sos. xanaa ko loola waral ñi nga xam dañoo bëgg a xees ñoom <laughs> ah, di xuñ seen yaram. xeeb seen bopp xeeb seen bopp la. waaye bu fekkonte ne dañoo topp seen baaxu maam danañ fonk seen der bu baax. dëgg tudd sànq nag ku baax ku am solo. Mhm. ku xam ne dégg lañ am ci waaye ku ñu naw la muy Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop xeexal na der bu ñuul ba tey jàmbaar ñu ngi ci nuyu bu baax suñu tonton Insa Lay Sey nga xamante ne ku ko gëm la ak suñu inspecteur Ousseynou gay nga xamante ne inspecteur bu nekk Rufisque moom tamit mu nekk ci ñi nga xamante mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy xeex lepp lo xamantene ne nañ ko ci kaw Cheikh Anta Diop ngir ñu gëna jëmmal li nga xamantene mom la Cheikh Anta Diop def ci biir senegal Aboubacar Moussa Lam koy nuyu lu bari Abdou Salam gey wa ñu koy nuyu bu baax nga xamne ne lim fi baye won uh-huh. dañ soxé ko ci képaram nga xamne daana jëflanteeg ak mom uh-huh. ñu ci baye ñu koy sam ko jara nak jox cër deug la ndax té yaakaar na na Cheikh Anta mom ku gëstu ay mbirëm te xool uh-huh. lim fi baye xamne waro xef wa dama gis ne walu loolu soxna yi jël ci ko diw seen yaram bari na coono day bari na da nga gis coono day jël diw ko daal di diw yaram ba takk ca ay ay ay ay ay yu mel ni ay xaw ma ni ko perméable perméable yi mu kuñ ci yaram wax mhm. waaw boobu coono xanaa feebar moom bu yàggee mu soxee ko ci rek bu feebar mën na cee am ndax xam nga ni ku dem ba sa yaram woowu def ay ak ñuul kukk mën na dem ba jàpp sa xol bi parce que boo koy diwoo xet gi nga xamante ne moom lay joxe rek mën naa jàpp sa xol mën naa jàpp sax sa biir bakken da ciy wexaat xëj na nag ñoom ñi nga xamante ne ñoo koy def xëj na looloo tax du duñ ko sentir waaye man de fu ma xeeñee dafay am leneen lu may def waaw ci ci ci loolu mhm. nga xam ne mooy wàllu xeesal boobu ndax yenn kilifa yenn góor ñi tamit amuñu ci li nga xam ne moo di lii ñu wax euh, ñoom it am nañ seen seen wàll ndaxte da ngay takk koo xam ne mhm. yaa ko xool mu ñuul kukk yoo ndes nas no bantum jaleen baan nga dem ba jëmmi jamono nga dem jënd mhm. ay xeesal ñoo ne ko diwul wala nga koy diwal def naa ñenn ñu def loolu am na ñu koy def am na ñu koy def am na ñoo xamante ne ñoom ñooy dem jëndi dañuy dem ba ca place ba laaj njaxas bi gën a baax ñu jënd indi am na fi yoo xamante ne yu gaaw la yoo xamante ne bala nga am semaine nga xees pej am la ñu woy rocci xam naa rocci <laughs> mu ngi noonu loolu bokk na ci li nga xamante ne sëriñ si ngi koy jënd sëriñ si am nañ ci part de responsabilité ndax defe naa ni kenn ku ci nekk soo xoolee ka nga xooloon ba takk ko ci melokaan ba mu meloon ñu sëriñ mooy ki nga xam ne borom kër mooy borom këram ah, balaa ñoo jàpp ne mooy waaw mu ngoog waaw borom këram borom kër bi waaw mu ngoog ka nga xamante ne borom kër bi eh, am na ñu laay boo xam ne moo taxoon mu dëgmal kee ba ñu may ko ko soxna si ba ñu may ko ko kon su demee nag ba di ko rocciloo boobu am na leneen lu dugg ñàkk doylu da ciy feeñ waaw xam nga li am solo ci duniyaa jàpp naa ne mhm. ñi yàlla may ñu xees mhm. yaa leen ko jagle. dëgg la moom soxna yoo xamee na ku ci xees ko ne ñu lay bëggee. waaw di bëgg ci yow it te di la wax rek. na nga xees a ba ko noonu dëgg la mu ci ñuul it mhm. naa ñuul dëgg la ndax am na ñoo xam bàyyi na ci ñu xees ñi mhm. takk ñu ñuul ñi takk ñu ñuul dëgg la am na ci bàyyi ñuul ñi takk ñu xees ñi waaw waaw kon li bon mooy timp tàpp nekk ci diggante bi xeesuloo pecc ñuuloo def naa loolu bu yàggee day damay gis ñoo xam ne léegi ñu nekk mag nga dugg ci woto fekk leen fa ñu mujj di muur seen xar kanam mhm. kanam nga dàppatiku ba mel ni dañuy xaw a nuroog sax euh, nopp si jaboot ñeme baa ci wax bi waaw waaw ba nga da nga leen di ragal xanaa xeesaloo koy da nga leen ragal xeesal moo koy koy indi ndax am na ci ñoo xamante ne euh, su fekkee dañuy yor yenn feebar yi yu mel ne ay cité yooyu soo laalee produit yooyu mën na laa indi problème sa jàngoor day daal di gaaw a génn dafay feeñ ci nit ki nga dem ba da gis yaram yëpp def ay ay ay ñuul ñuul mu nekk loo xamante ne gënul boo ci gisee koo xam daa ñëwoon kooku mm-hmm. wax dëgg fa yàlla rafet neex xool jékki-jékki xëy daal di ñoom nag bu ñuy tàmbali dafa mel ni nag bu ñuy tàmbali waaw dañuy njëkk a jël jiw lii kanam bi mu commencé di di kii nga wax ñu ne dama cema xaw a kii noonu ba mu yàgg ñaa di ah, gisee ko xam dafa ñuuloon rafet mu yàgg moo kii boo ko gisee ndax du am la na xari ah kay ngay am lu la métti parce que da ngay gis ne yow ñuulaay ba mu amoon ñuulaay bu rafet la waaye bu demee nag ba rocc ko ba mu ba mu xonq cuy nga xam ne mën naa dem ba ci yàgg mu indil ko problème dangay xalaat lam koy war a indilaat. te amul bénéfice de. amul bénéfice. sa xaalis da ci jeex amu ci mu ngoog sa der day yàqu sa xaalis jeex. Ah, sa der na yàqu. sa xaalis jeex. waaw xam naa ne waaja takk nam ñaareel. mu xees pecc. mu xëy. aaw bu dee nag moom ñaar bi ñëw lal ba sax ñu toog mhm. waa dem indi cafetière bi teg mhm. waa dem indi mburu bi teg won ko ginnaaw dem de siwaat mu xool ko muñ ko muñ mënu koo mu yëngal boobu ne jigéen daal xees <laughs> waa di wëlbatiku ne jàkk jabar ji ñuul ci wala mu ne mu ñuul boobu mu ñuul <laughs> kon jigéen xees mu ñuul boobu kon ñu dem ci baati wolof yi uh-huh. baati wolof yi euh, <laughs> ne nga sàmm mhm. sàmm de xanaa loolu buñ ko wax day nekk verbe sàmm ak càmm waaw baat boobu mën nga ci waaw sàmm mooy loo xamante ne da ngay aar. aar aaral sa yaram. bokkewul ak sàmm gi nga xamante ne. sër bi mooy jël aw yatam topp ay nag wala mu topp. maanaam sër bi. seetaan. te xamuñu wolof baax wala boog. tubaab bi lañ gën a xam. Mhm. mooy berger. berger waaw mooy sër bi. di sàmmkat kooku def moom bu fekkee ne yaa ngi ci dëkk ba. Mhm. mooy taxaw ci kër buntu kër bu nekk ne ndax am nga xar mu bëgg mu yóbbu ko sànni. mu yóbbu ko ci àll bi. mu dem ci àll ba xont ko waaw xont ko. Mhm. jox ko mu naan bu ngoonee bu jawal see. nga jël wóor jox ko. waaw waa nga jël ay koppar jox ko. jox ko mu ngoon kooku mooy sër bi mooy sër bi. Ah, waaw waaw am na solo. ku ne ci dun ko war ngaa sàmm. sa wér gi yaram. sa wér gi yaram. ndax boo sàmmee sa der di nga sàmm sa wér-gu-yaram. waaw kon daal. Mhm. ku nekk ci li nga fi nga féete. Mhm. la nga yor war nga koo sàmm bu sàmm ko aar ah. sàmm waaye am na feneen foo wax. Mhm. taar taar. waaw waaw taar wax nañ ko sànq. parce que taar mooy rafetaay. rafetaay waaw. sa yaram rafet lool. loolu moo tax ñu ni la. Eh, xel mooy sab taar. maanaam sa sàmm gi nga war a sàmm sa yaram. sa der bu ñuul boobu. càmm gi nga ko war a sàmm. moo lay wax ni loolu mooy sab mooy sab taar waaw. xam nga foo tuddoo dex. dex waaw euh, dañu ne euh, li ko dale fii ba ca wàllaa dex wàllaa dex boo ko déggee dafay nekk feneen. beneen dëkk ni li tubaab di wax riz. maanaam boo jéggee dem ci beneen. waaw geneen wet ga. mooy wàllaa dex ndax dex gi dañ koy séq dañ koy séq ñu wetu ndeyjoor gi mu ngoog am seen euh, li ñuy wax tefas bu doon géej waaw am ñeen ñoo xam tam ñoom ñoo ngi ca ginnaaw ah boo jégee jaal nag mooy ca wàllaa mooy ca wàllaa dex wàlla dex waaw dex dafa mel ni wut na ab déeg waaw wuute na ak déeg nag mm-hmm. ndax déeg euh, ñaare dafay taw ba ndox ma nekk fa ndox ma bari ma fa nekk ci ginnaaw kër gi waaw xur wa fa nekk xur wa fa nekk fees dell ak ndox loolu mooy déeg ba déeg waaw moom mën naa jeg-jeg ñiis ba nawet ñëwaat ba nawet ñëwaat waaye dex moom day continuer bu dee moom day continuer rek nekk fa moom la tubaab di woowee kon li nga xam ne mooy marigot fleuve marigot waaw wala rivière noonu daal waaw mu ngoog waaw waaw soxna si mhm. baatub teqet ree waaw di nga dégg bu ñuy taajo boo naan jagat leen ko jagat fu ñu ko jagat jëmee caaji na sa mun a teqet ree mhm. teqet moom ree xanaa moom mooy jékki-jékki rek ree ree joo waaju waajoo ko su ko defee nag ah, boo nee kang kang maanaam ga siiñ say bëñ bëñ ya weex tàll siiñ ma ñuul kukk ah, maanaam jigéen taamu nañu jongo ma jam am siiñam am siiñam ñuul kukk bëñ ya weex tàll kooku de ku mu reetaan bu la laajee mu ànd ak ñuulaayam bu rafet ku mu la mu reetaan bu la laajee nga sawar noonu lu mu la laaj nga jox ko ko maa ngi ci nuyu sama sang sama sëriñ bu baax ba ca kër ga ah. di ko ñaanal yàlla na fa yàlla bàyyi ba ca kanam amiin ñu koy ndax lépp moom la moo ñu may euh, moo ñu yolomal daal ba nga xamante ne dinañu mën a dox suñu jéego yi ba tey jii ñu ñuy seetaan fii. loolu am na solo kon ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar. kon njaboot ga yëpp. foofu moom mooy loolu mooy jigéen ju ñuul. Mhm. jigéen ju ñuul ah ku ci dégg lu neexul it ñu ngi lay baal. Mhm. waaye ku ci dégg loo xamee nit neexul te muy mhm. dëgg it. nga del te ginnaaw. waay ndax der bi dundal ko daa am noo koy sàmm. da nga yegg foo xam ne. damay mel du la neex. dëgg la te nag magum waxoon naa ko moo gëm magum xamoon naa ko. waaye bu ñu bàyyi ko foofu wax nga drogue bi de. yëmuñu rek ci maanaam xeesal boobu diwoo boobu. waaw waaw am na ñuy jëfandikoo leneen loo xam ne day yàq. mu ngoo kon drogue bi drogue bi. jamonoy tey jii metti na lool rawatina ci xale yii di yaakaar yi ëllëg waxambaane yeeg xale yu jigéen ñi ko ci dajeel xoolaat ko ca kaw muy sànni yoxoom di xool ca kaw di làkk lu kenn xamul ak a tëb di dal xëy suba teel la jël sa waa kër yaay saaga baay riir wuti leen yu xooye jib nit ña wuti leen nga jël ngànnaay dàq leen ñu naan liggéey mbaa ay rab goney tey jii dorog bee leen joxi rab suñu daja suñu dajaloo di naan warga wu bon taal seen cuuraay di tux lu bon ñii yor di liant di muucu bay nelaw ñee naani doom ba seen làmmiñ damm cey xale yi tey moytul leen ma doro day lakk xolu nit di yàqum xelam boo ko xasee mos tàggoog sa sago te nit bu amul sago bàyyi ma lay doon ko wara a doon sa baay sànku ndax dorog rus loo nga say mbokk tas seen yaakaar yal na yàlla fóot xelum képp kuy jaay dorog te jox ko lu gën a lu gën jaayum dorog amin amin ah dorog doy na mhm. kon ñu bari fii toll nii jàpp nañ ne ay rab moo leen jàpp mhm. ñu doon ko xëy na lu toppoon seen i maam mhm. waaye xëy rek di say ñu naan ay rab a ko jàpp kon yenn yi du rab de yenn yi du rab aha yenn iya, yi dorog la dorog la aha mooy jàpp nit dugg ko ba muy waral di say noonu aha di wax lu kenn xamul loolu doy na waar di jëf jëf di doy waar ndax ki xalaata jël ki nga xamante ne mooy sa muy bàyyi wala muy yaay nga di ko saaga ak di yëkkati ngànnaay uti ko kooku tàggoo nga sa sago tàggoo naa sago te nit xel ak sago sago am na solo ci doomu aadama lu wér la lu wér a wér lu wér a wér waaw am nga ne ñoo xam ne dañuy muucu waaw muucu déliant mooy déliant bi ñuy jël nga xamante ne moom la ñuy euh, pompe euh, kii yi dénk yi boobu xanaa mooy xanaa boobu mooy yées ci nga xam ne mooy wàllu ñoll yooyu ñu def ko ci morso di ko muucu ba kenn xamul lu ñu nuru ñi ci mu ngi noonu ah ñi ci des dañuy jël ay doom di ko naan ba seen làmmiñ damm wala seeni i cër lemu. la ñu woowee pion yi. mu ngoog dootuñu mën a dox. te loolu yëpp dorog yi moo ko waral. yàgg di lagar lagar yi. tànkee la mu ngoog da ngay gis xam ne day jóg sax tànk yi man ne dafa daal di lafañ ci saase. te loolu yëpp naan jël doom yi ñuy yi naan moo leen ko yóbbee. te te yemu rek ci góor ñi waaye dafa jigéen na ay jigéen na ay jigéen ñoo xamante ne loolu mooy seen métier. ndax fa ñuy dajaloo nee naa la dañuy dajaloo fa ñuy dajaloo di naan seen warga wu bon. ga wi day daa mel ni am na ko moom sa waxtaanal mhm. mu ne benn guddi dafa demoon da am fu naan ngonnal yi mhm. fa gonnal ba benn bis gaa yi daal di defar mbir mi mhm. ni ñuy waxee rek daa daana ah. ko faasa jàppal jàppal ci tee mu naan kaas nee ba fa bàyyi ko addu bi di wëndeelu tëdd tëdd ba xaaju guddi yaakaar na bis boobu lay wàcc liggéey ndax jo ataay jooju xanaa moom ku la joxoon kaas xanaa nga delloo ko ah mukk du ma ko jël sax doo koy delloo <laughs> moo tax seen i dama koy dama koy moytu ndax xale yi dañoo bari ay feem dañoo bari ay feem ataay xanaa xanaa naana ak ngun ak rëb-rëb doy na ci doy na sëkk waaye ñoom dañoo bari ay feem waaw pexe yu ne dañ koy def di baxal ataay ji rek jëmale ngoor mu ngoog ba mu ñuul ko saa yooyu ñëwee yaa ngi fekk baraada bi ci taal bi te lay nekk ca biir baraada ba yëpp bul xam. <laughs> kon daal ku yebbu def ndànk. mu ngoog di moytu seen jotaay itam ataay joo gis naan mu ngoog waaw loolu lan ngay xalaat ne moo waral xale yi def loolu. ah man de dama yaakaar ne ñàkk xam-xam bokk na ci ak ñàkk jëmu ak ñàkk itam ku leen aar ndax kiiraay dafa am solo lépp woy jur yi la parce que dafa am loo xamante ne boo ko dul seetlu ci say doom. ëllëg mën nañ laa indil musiba mm-hmm. ñu toogee seen jotaay de leen nemmeeku ba xam lan la ñuy def mm-hmm. ndax koo ci xool tey su ëllëgee su amee beneen doxin wala mu am yeneen waxin nga xam ne kii am na lu mu laal loo xam ne waru ko woon a laal waaw kii xëy na topp ab dërëm talul këram mm-hmm. day ñëw rek tëdd gis njabootam ngoog wala bu fa nekkee lu waaye def neex na ndax kooku tamit bu ëllëgee lu am moom it amu ci wal bu ëllëgee eh, dina dina ci am daani yàlla ndax kenn ku ci nekk ëllëg dinañ la laaj naka nga doon sàmmee sa njaboot. dëgg la utib dërëm baax na lool waaye sàmm sa njaboot it am na solo. Mm-hmm. léeg-léeg nga toog waxtaan ak ñoom léeg-léeg seen i jataay day am nga ñëw seen biir sax toog da ngay dégg yenn wax yoo xam ne da nga cay bokk bokk lu ngir xam ñoom lan la ñuy def. ku ci mel ne man léeg-léeg damay la jël xale yi lool xale bu jigéen bu ñëw sax dinaa la woon ne la ah nangam ak nangam. parce que loo bëggul sa doom def ko bul bàyyi doomu jàmbur di ko def. Mhm. nit ki de bu ko xanaa drogue ba jàppe ba jàpp. yuux googu ñu dégg. waaw nga xam ne mooy li ñuy wax xam naa ambulance. xanaa koo koy jël si yóbbu. mu ngoog moo koy jël yóbbu ndax boobaa xam nga ni ka nga xamante ne naan na ba mandi jël ngànnaay wuti. waajuram waajuram. su fa ñoo xamante ne amuñu saga ñoom tamit nekkee mën nañ koo dóor ba mu loru ba ñu jël ko dugal. ci ambulance xanaa kooku waxambaane lay doon. waxambaane yi waxambaane mooy mooy kan. waxambaane mooy ñi nga xamante ne dañoo toll ci fukki at ak juróom-ñaar jëm kaw. maanaam garçon li ñuy wax garçon li ñuy wax garçon ñu jëm garçon. mu ngoog waaw di bëgg a nekk maanaam. mu ngoog euh, wax wax maanaam xale bu góor. xale bu góor waaw. bu toll nga xamante ne toll nga ci sa digg doole. Mm-hmm. ndax ñu ci bari ñoo ñooñu ngay gis ñuy taxawaalu ñu ngay gis itam ñuy def jëf jooju. Mm-hmm. Mm-hmm. baatub euh, lëjël. lëjël. xanaa lu lëj la. lu lëj la maanaam mu sonal leen. sonal leen xam nga lëjël say waa kër day tax lëj lëj am nit ñi ñëpp daw ñëw dégg yuuxee ñëw ca kër ga ne lu xew fii loola mooy lëj lëj ba la fa xew xale bu góor ba la muy def seen waa kër loola mooy lëj lëj ba xanaa baatu muucu la muucoo tax muucu ak mukki da bokkul déedéet ndax muucu mhm. lu ñuy def ci gémmiñ la di ko xëcc maanaam lu mel ni ndox looy lu mel ne ndox la nga koy xëcc nga xamante ne euh, sa bakken sax da cay wàlli mhm. su dee mukki nag mhm. dafa nekk looy tux ah, am saxaar la saxaar lay doon. <laughs> kon daal muuceeg muuceeg muqi. mu ngoog du ñu benn. ah jar naa moytu. waaw lu jar a moytu la bu dee orange mën nga ab ab orange. mën nga waaw koo muuci moom. bu dee ndoxu mën nga koo muuci. mën nga koo muuci waaye bu dee <laughs> leneen lu ñu def ci daal wala ci biteel ñu ñëw jox la bul laal. <laughs> kon de kooku dootu ànd ak sagoom dootu ànd ak sagoom. ndaxte dina tax doo xam foo nekk. loolu mhm. nekk ngay def loo xalaat rek da koy def. Mhm. am na ci ñoo xamante ne ciy dem bare seen doom suñu paré nga naan dama defone am xar la ray am na fi yoy yeb am na fi. ndax ñak ràññee ak xam ñàkk ràññee amatu kon dañooñu sanku nañ sanku nañu sanku moy ko xam ne dafa ah réer réer na mer mer ndax motax mani ku wara doon sa bay sanku ndax doro hmm. yow ya wara doon sa bay taxaw sa taxawayu bay hmm. nga dem ba réer mer ken gisatu la ndax li nga xamantene mom nga doon jëfëndiko muy dorog bi ba mu sank la hmm. léegi léeg nga gis fi ñoo xamante ne dañuy nekk ci àll bi di taxawaalu kenn gisatu leen ñu naan kii ci askan bu baax la bokk mu ngoog kii mooy doo kii du doomu diw jéem mu noonu ñu ne kii de ah, boo demoon seen seen dëkkuwaay waaw seen kër ñu baax ci la bokk dëgg la te loolu yëpp loolu moo ko waral loolu mooy sànkute dem ba kenn dootu xam foo nekk ñuy laajte ci télévision yeeg laajte ci rajo yi fu ne te fekk na loolu nga xamante ne moom la doon jëfandikoo moo waral mu sànku ji moo tax way jur yi war nañu gën a bàyyi xel ci njaboot gi waaw nañu gën a bàyyi ci xel ci ñoom lu ñu yor ak lu ñuy wax yooyu yëpp nañ koy nemmeeku ndax lu am solo la. balaa ngaa tëdd. Mhm. xool xale yi. luñ fu ñu nekk ak lu luñ nekk. mu boo yeewoo njëkk leen a jóg. Mhm. man leen xool. xool leen di du bokk ak ñoom jotaay. di ànd ak ñoom. ci mhm. bërëb yu baax yi di leen wan nit ñu baax yi. di dëkkal seen i nopp ay kàddu yi gën. dëgg naa ne loolu ko def de xanaa sa njaboot mën naa boo ko defee sa njaboot mën nañoo mucc. te it léeg-léeg sax nga xirital ci ñu ne ko yaa def nangam su defee da nga daal di xam su deful di nga daal di xam. magu démb de bu ñu musaan ne jàkk xool la rek. xam ne yow yaa soo waxee ñu xam yaa deful deful. <laughs> yar boobu nag moo jeex. maam kenn du moom. déedéet. kenn du moom. Euh, ki nga xam ne. Mhm. log naay pion. Mhm. wala mukki na. ba réer. Mhm. wala mu muucu ba gëlëm ay tànkam las muy lasar lasari. kooku de xanaa jigéen ju baax jànq bi de xanaa janq boobu de jànq bi ah. war naa moytu kooku de xanaa. war na koo moytu bu baax. waaw kon boog jànq bi ñu indi taalif bi nga xam ne moom lañ tuddee jànq bi. jànq bi. di ci nuyu bu baax nag suñu yombalkat bi nga xamante ne moo ñu doon jàngal muy Cheikh Ahmed Tidiane Niang. ñu koy ziar di ko gërëm. bu baax a baax. ba di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may wér ak wérle. amiin eh, ndax li yëpp moom la. moo ñu tax a ñeme. bim ñuy jàngal rawe nañ ñu ñetti weer. ñu ñëw dugg mu seetlu seetlu ma maanaam gëstu samay mbir xool ne ma demal dina baax. dina baax jooju nag ba léegi mi ngi koy gis mi ngi baax yàlla yàgg baax ngi sant yàlla bu baax a baax <laughs> kon ñu ñëw ci jànq bi yow jànq bi te di ndaw amoo lu dul yow sa ndaw sàmmal sa bopp te di daw soo ko defee dinga raw moytul ma fo ak làng te fonk yow sam njàng bul di wax loo xamul te bul di def loo mënul lu ko moy daa bari bor te it daa mën a wor bul jaay sa boppu ndax dërëm mu muñal ëllëg daa am gërëm bul nangu mukk ku la ger fonkal sa xeet ak sa der moytul ma réy ak bew te bul di wax wax ju sew bàyyil ma jëw ak rambaaj bul toog di fen ba mu naaj <laughs> kon jàq bi ah, loolu la moom dégg de mu ngoog moom mhm. di di di fen ak ba mu naaj maanaam bàyyil ma jëw ak rambaaj mhm. te bul di toog di fen ba mu naaj xanaa kooku mooy yenn soxna yi nga xam ne ñoom buñ fanaanee ak seen borom kër toog ca digg ndaje ma di wax lépp toog fa ba far ña demoon duggi woon mars ñëw fekk leen fa xanaa ñooñu ngay wax ñu laay waxal mhm. xale yu jigéen yi nga xamante ne amuñu fuñ jëm mhm. nekk ci mbedd yi di taxawaalu ku leen romb ñu am ci yow ñu lay wax ak di rambaaje rambaaj de xanaa mooy koo xam ne koo xamante ne da ngay féewale ay nit. ah kuy féewale. waaw fexe ba jaxase nit ñi. mu ngoog soo ñëwee ne sëñ Ablaye. Mm-hmm. ah yow de soxna Kiné lim la waxal. nga ni ko ah ñu wax foofu yow tam boo gisee soxna Kiné nga koy xoolee bët boobu. mu dellu si waat soxna Kiné ne ko sëñ Ablaye lam la wax. soxna Kiné bu la gisee di la xoolee bët boobu. kooku mooy rambaaj. moo tax jamono ji nit ki war naa bañ a nekk benn nopp. nopp mu ngoog lu wax nga xool. Mm-hmm. fexe déglu ka ca des. ba xam loolu am na. wala léeg-léeg nga mere ni ñëw ne ko diw man day muñ naa ko muñ mëntuma ko li ma dégg ñu ne ma yaa ma ko ndax yaa ko wax. Mhm. def naa loolu baax na bu ne waxuma ko nga gëm ko. kooku nit a koy def. nit ñi de ñaar ñu baax ñu ànd la ñu bañ a mu nga noonu yàq gën a man defar te loolu bu njëkkoon sax maam yi dañ ci daan taxaw. dëgg la da daan gis sax nit ñëw ne la nangam la la diw wax waaye dana fexe ba kooko toog nga toog. dëgg fexe ba dugal waxtaan woowu. Mhm. indi ko bu boobaa bu ëllëgee yow mu dootoo wax. dëgg dëgg la waaw am na foox foog baatu foog foog ak fonk de dafa wute. waaw foog waaw wala waaw. fo ak lang. fook ak lang. waaw ñaarooy de xanaa ku ko jàppee moom bu yàggee nga des ginnaaw de. fo ak lang lang moom mooy maanaam. ñëw rek toog. waaw fo ak lang de ñaar yooyu moom. xanaa ku ko jàppoo des ginnaaw de. ku ko jàppoo da des ginnaaw ndax ku fo du yóbbu dara soo de lang itam doo am dara. lang rek jëmale ngoon. jëmale ngoon rek. <laughs> foo fekk paraada rek nga toog. këru suba nga fekk la fa. mu ngoog ba keru ba keru ngoon nga ñëw. doo am dara doo yóbbu dara waxi kese ngay yóbbu. te du doon wax joo xamante ne sax ju gën la. taamu nañ daal jotaay boo xamee ne jotaayu ngëneel la. ngëneel mhm. da nga fay jële xam-xam wala nga jële fa am-am. léeg-léeg ñu gis ñuy àtte. Mhm. mu ne man bokkuma ci woor waaye ñu ne ko fa lañ la fekk. fa lañ la fekk. yi wax naan bokkuma ca fekku fekkuma fa kay moo gën bokkuma ca moo gën kon daal nit ki mhm. fi muy toog dafa waxtaane ba mu fay dem war naa taamu ña ne seen jikko rafet na la fay fekk bokk ak ñoom waaw xamante ne ñii kat seen jikko rafet na seen i jëf rafet na mu nekk ak ñoom bul jaay sa bopp mhm. ndax ay dërëm waaw loolu de xanaa daal yéen euh, soxna yooyu waxa dëgg la mhm. ay soxna ak ay xale jamono bi fi mu nekk nii tërëdina te koo ci xam ne sa ngor rek Mhm. di nga jaay sa bopp juddoo ci dëkk bi yaro ci dëkk bok ci askan bu baax mu ngoog xëy fétërle ut sab carnet dem rang dem rang do do yéeme na luyee sa local nek fa di def yenen kooku de bu màggatee fum jom alku rek ah bu nekkee ku toll ci digg jamono de jekk lool mu ngoog xëy na jar lu njëggu baax waaye su commencé magat de dootu ko jar ragal naa ne don ko doon seet boobaa dana mere ku ko deful dara di rëccu nak te fekk rëccu day fekk jëf wéy jëf wéy moo tax looy jëf lu ne. Hmm. na rafet. toll ci def ko. Hmm. weesu ko bàyyi ko waaye nga jëf lu baax. am mooy waral. moo am solo am lu baax. dëgg la. waaw <laughs> baatub ger. Hmm. waa ger mooy lépp loo xamante ne yaa ngi koy def ñu di la ca neexal. tey jii nga am loo xamante ne da nga soxla tey ci soxna Kine nga ñëw xam ne loolu mënu mënu mënoo ko waaye mun la a ah, jàpp ci rek am lum la ngëbal loola mooy ger. ak tam nga gis jonguma joo xam ne bëgg nga ko. waaw waaye naroo ci moom lu gën. nga daal di fexe oto may ko topp ko rek rek ko topp ko di ko ger ba am ko la nga bëgg nga daal cey noppi war ko ginnaaw mu naan su ma yëgoon kon de ger baaxul <laughs> ger baaxul <laughs> baatu baatu bu rëy ak euh, beew ñaar la beew beew nag moo gën a bon beew mooy lan beew nga am tuuti rek defe ne daal di yëg sa bopp ah. defe ne yow rek yaa man leen nit tukki ñëw waaw daal di am dëkkuwaay baax indi beneen melokaan ñoom doon nuyu bu leen rombee ne na ngeen def leen loxo. di doxee neneen di waxee neneen. ko yëg sa bopp la. yëg boppam. beew baaxul de. waaw di wanewu rëy nag mooy koo xamante ne euh, luñ la wax rek nga ni loolu daal du ma ko def aju. bu la bëggee liggéeyloo ne la lii nga ne loolu daal. du ma ko liggéey sama suñ ne jëlal demal jënd kilo gura dem jaay ko. nga ne eh loolu ma dépassé naa ko. ñu bëgg may ki ku baax tanal ko ko mu ne ki daal duma sey duma sey mo ndax sama class <laughs> mu ngi non yoy yeb ci bew la bok ci rëy ak bew daanaka booy xol ñom ñaar dañu xawa a jege ñoo jege ñoo léeg-léeg ñu togg ci kër gi ciébu keccax bu am ñebe jutt wala mbaay ngañ wala njasiw waaw euh, wala géej yas ak ñoomi seen ma lekk ma lekk <laughs> fekk sa la daan xamul jën xamul leneen sew da wax ju sew baaxul. Mm-hmm. mooy lan maanaam dañ koy tere. Mm-hmm. wax ju sew bokk na njàmbat sax bokk na ci fu ñu la fekk. Mm-hmm. yaa ngi xultu yaa ngi jàmbatu yaa ngi wax wax ju sew joo xamante ni euh, ku ko dégg tey am sax kersa. xaaral la war a yenn saa yi jongo ma togg ba yeggale taaj ñu ne ko suur na ngoo ko dégg euh, am na waxkat yoo xam dañ naan ceeb bu sew moo ma gënal wax ju sew. ah ceeb ba sew moom a gënal wax ci sew. waaw <laughs> kon dal jigen war nañ fexé borom kërëm bu dématé ba ñëw. Euh, mu dalal ko defal ko. defal ko dalal xelam. wa jamm ju bari baxul de. jamm ju bari kay baax jambat yu bari mo bon. Ah, mais jamm ju bari bax ah jamm ju bari. waaw waaye jambat yu bari. jambat yu bari mom bax da yobu fit. da yobu fit jamm ju bari mo gën jambat ju bari. ah ci soxna soxna fo ñëw rek mi ngi ré mu ngi ré amé bu ñaké ngok boko joxul dépense mat. jàmbatul dara du xalaat dara lu ñaaw dalal la su fekkente ne bàyyi nga fa dara xayrul soo fa bàyyiwul dara yi dina ligganti ba ñëw taajal la. xam am na soxna yoo xamee ne boobu dépense matul ca la ca la lekk kay gën a neexe waaw dañ koy wan ne ko. kër ñaara ko séq. kon jigéen war nay fàggandiku léeg-léeg mu dem fenn am fa dara wala nga jox ko dem ndax dama jaaxle. ndax tey dafa mel nii jafe-jafe yenn góor yi. Mm-hmm. moom mooy dépense. ay kàddu yo xam neexu rawat nak nga tëdd guddi fanaanoo loo war a xëy joxe lo xey joxe boko da def say nelaw du meuna tambali nak di wax bu boba say nelaw du neex han ah? da ngay daal teela teel nak jog genn jóg génn dem <laughs> dootal ndékki <laughs> maa ngay ndéegu kon bok ngir maa ngi noonu jànq bi boko <laughs> warna set ñu ngi doxale mhm. warna set euh, ñi nga xam ñom la wara roy mhm. am jikko jigen ndax euh, ndaw tay moy nek magu ëllëg mhm. dafa am mag ño xam jarna ño jege Mm-hmm. am na jotaayu ngëneel yoo xam ne jar naa fekke di fa root mm-hmm. euh, di taataan di am loxo di ko jëfe ëllëg mm-hmm. kon boo képp koo xam ne yaa ngi doon lang suba làng ngoon nekk fa parce que nekk jiiba jiiba mbaa taskat ak yàqkat na nga soppi sa jikko waaye di am na leneen loo xam ne day dafa mel ni dem moom nga yoree maanaam mbàkkum ndongo waaw mbàkkum ndongo moom laa indiwaat di ko dolli ci rek Mm. ñett yi fi jot a jaar. Mm. boobu moom yaa ko bind wala. déedéet bii. sëriñ Saxir Thiam moo ko bind. ah mooy bàkkum ndongo bi. ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax. sëriñ Saxir Thiam waaw ku jàmbaar baax nekkoon koo xam ne wax dëgg yàlla. Mm. Euh, li mu làmboo bari na. bari na ñu mel noonu dañ leen war di wane. Mm-hmm. ndax li ñu bind bàyyi fi. Mm-hmm. ñun war nañ koy jukki. Mm-hmm. di ko wasaare. Cheikh Aliou Ndaw mu ngoog. waa Imam musaa Gueye. mu ngoog ak ak ñeneen. ku mel ne Mamadou Gueye Samb ah, sëriñ Lamine Baye sëriñ Bay di Taal Nduur ay Aysatu Jaay ca Tëngéej mm-hmm. ñoom ñëpp am na lu ñu bind mm-hmm. loolu ñu bind nag ñun ñi nga xamante ne yàlla jàppale nañu ñu mën a bind mën a jàng ci kàllaama wolof mm-hmm. war nañ koo ñëw nag jukki ko génn ko wasaare ko xale yi mën koo jariñoo kon boog bàkku ndongo bàkku ndongo dama yaru te duma tooy yëngu te duma xumb teey te duma yeex njaxlaf te duma rambax am fayda bari teggin weg way jur déggal leen ndongo daal am gét ndey ak bàyyi ñoo ma yilif di ma sàmm te di ma won yoon sama sëriñ fonk naa ko naw naa ko di ko nuru ndax bëgg a xam su may jàngi di taalibe ci du ma jànni mag te duma ko tiiñal su ma meree ànd ak sama sago su ma tiitee dese fit su ma ñàkkee gore wax sàmm ko la ñu ma jàngal sëriñ Saxir Thiam. wax sàmm ko la ma jàngal sëriñ Saxir Thiam. Ah. loolu la la ñuy woowee xanaa ñaar ñaar rythme mhm. damay yaru te du ma tooy. Ah. yëngu te du ma xumb. waaw tey te du ma yeex. te du ma yeex jaxlaf te du ma waaw moom mbiram mi moom doy na waar de baat yooyu mu tàn taan jéy baat yu doy am solo yu am solo la nañ ca dem ñaar ñaar waaw dama yaru te duma tooñ xam mhm. nga yaru ak tooy daa mel ni dañoo xaw a xaw a làng ah. am nañ yaruwul mais dañoo tooy tooy de baaxul dañoo xam ne yaruwuñu dañoo tooy tooy baaxul foo leen fekk dañ naan nemm rek waaw ah, loolu baaxul ñu naan kii dafa yaru fikk dafa tooy dafa tooy te ñu naan kii tooye maan yaayam yaayam du bég de mu ngoog ñu naan kii a maan la rek mooy ñaari ñi nga xam ne boole ba bu ñu toogee jataay ñi nga jataatu daal a toog waaye nag bu ñu yëngoo pare damay yëngu te du ma xumb te du ma xumb mën ngaa yëngu nag te doo xumb waaw xam nga defe naa daanaka wax tëll tëll rajax ah, rajax rajax rajax toj lépp toj kopp toj kaas <laughs> yàqtale xaj ñu fenn mu ngi noonu bu duggsee ci kër gi rek ñu xam ne kii dugg si na yëg si nañ fa ëppal ñu naamati gan mu ngoog <laughs> kon tey waaye waaye tey te du ma yeex waaw tey te du ma yeex maanaam nga xamante da ngay dox doxin wu yiwe di wax wax ji tey te du tere nit ña xam li ngay wax lan la am na jigéen ñoo xam dañuy dañuy yeex sedd sedd lool waaw dañoo xam ne dañuy yeex waaye lépp seen teeyaay moo ko waral bëgg nañu lu ñuy def def ko ak defin wu baax ba bu sottee nit ñi mën koo jëriñoo. waaye njax te du ma rambax. njaxlaf lafte du ma rambax. njaxlaf mooy koo xam ne. li muy liggéey ci boole fulla ak fayda. waaw ci ci ni mu ko war a defee. waaye nag bu rambax. boo ko wax loo na li war a wax. waaye rambax de baaxul jëf loo dina jëf lu war a jëf. waaye rambax moom boo ko ne yemal fii mu jàll feneen. waaye am ëppal am fayda baax na waaye boo bari bari teggin. bari teggin. nga soo amee fayda mm-hmm. ngay wane ay teggin ndax doo bëgg ku la teg leneen dugul ay teggin parce que kanam jàpp sa njàmbur ba ñëpp jox la cër mm-hmm. waaye du tee nag ko war a nuyu nga wuyu ko léeg-léeg nga foree nag du foree yenn ñàngal yëpp yu baaxul de xam dignité rek am dignité dafa ne yenn ñàngal yëpp yi baaxul déedéet baaxul borom kër gu toog ci kër gi rek ñàngal ñàngal loolu moom ragal ko loolu moom baaxul loolu moom baaxul ci borom ah baaxul ci borom boo dugg see soxna si tiit ngoog <laughs> soo nee salaamaaleykum ñëpp aj seen i bagage boo jàddee koñ xale yëpp daw nu mu doon. ah naan pas almaa ngi ñëw. wala eh, am <laughs> te bëri teggin. waaw. waaw waaw weeg waajur weeg leen. déggal leen soo joxee kër sa waajur. Mm-hmm. déggal leen. Mm-hmm. yar du tegu ci sa kaw. ndax di nga xam lan lay bañ. Mm-hmm. di nga xam lan la bëgg. ba bu boobaa di nga moytu lépp loo xamante ne safaan la. ko fonk waajuram day fonk waajuru jàmbur. soo fonkee sa waajur fonk waajuru jàmbur. te ci mbedd mi ci ni ngay fonké waajuru jambour ci lañuy xamé né yow mi ku wéx say wayjur nga. lu ci dolé wat euh ndonga day am gett gett de xena mom moy moy lam noonu. gett boko déggé moy am kilifa. am kilifa waaw. Bokul ak gett ga nga xamné fa lañ def. carrière yeeg euh, euh, nak ya. mën nañ nekk fa di fa kii daal. waaw man nañ ko fa man nañ ko caa. Mhm. Euh, mandargal mandargal ndax day tax yow sa biir kër rek ngay yem doo génn di dem di defi loo xamante ne kenn santu la ko loolu doylu moo koy waral doylu moo koy waral kii raay ga dafay am ca biir kër ga parce que gétt daf lay leer ne xar muñ fa dugal wala bay wuñ fa dugal wala nag lay nag wuñ fa dugal ba ba mu am euh, caabeem du génn dem di ruri. dëgg la kon donga day am gétt te nekk na bokk dañ donga bi bokk na ci xale bi nga xamante ne mi ngi ci biir kër gi xale boobu ci biir kër gi itam war naa am gétt gétt ga moy kilifa ga ca biir kër ga mhm. ak kër ga mu nekk mhm. fofa waru fa genn di dem di def leneen lu bon euh waxtaan wi am na solo sëriñ saxi caam bàkkum ndongo bàkkum ndongo lii day xana xalé yépp war nañ ko jàng ci daara yi nekk daara yi digg doomu yépp tout tànk yi ndax buñ koy bind xana lolo taxone waaw buñ koy bind lolo taxone dafa am lo xamantene mom la euh santane bu muy sant xalé yi kañ gu muy kañ xalé yi ngir xalé yi mën a jaar ci yoon mu jub moo tax lii dañ koo war di jàngale ci biir daara yi dañ koo war di jàngale ci biir école yi ndax boo xamante ne dañ koy dénk xale bi ngir moom mu jox cër ki koy jàngal ngir moom mu jox cër waajuram waaye mu jox cër yitam ki nga xamante ne moom lay taseel ci mbedd mi parce que boo xoolee xale yi léegi wegatuñu ñu leen di jàngal sax parce que sama sëriñ ah mi ngi ci lan la def saa sëriñ naw naa ko fonk naa ko. ngay naw de xanaa day mel ñenn noo xam ne doy na la. mu nekk koo xamante ne jikkoom doy na la jëfam doy na la melokaanam doy na la mi ngi may jàngal waaye gis naa ne kii kat su ma ko royee ëllëg mën na maa mel ni moom baa ma raw ko. mu tegaat ci lan. mu ni sama sëriñ fonk naa ko naw naa ko di ko niru ndax bëgg a xam. Hmm. di ko niru ko niru bëgg ndax bëgg a xam. Hmm. ndax soo bëggee am xam-xam ki lay jàngal da koy jege di xool ca la muy def waaw tarbiyu ko tarbiyu ko noël say cër ko waaye bu la meetar ne nangam nga sànni ko loxo sol lu gën a rafet la mu sol mu ngoog ëppale ko ëppale ko wane ne ko man faale ko boole koo sol lu ñu naan xiit rang rek yu sew yu gàtt ah xale yoo xam bu jàkkaarloo yow nag ragal naa dootu man jàng noonu ah te nit nit rek la ah la waye nak nañuy waxtaan ak suñuy doom. ñu ànd ak seen sago rek. rek kon nga taggo non da na ki liñu ñu won fiñ tollu eh, man na mën naa ne daanaka kii nga taggo ak mbokki Sénégal yi nga xamni ñu doon. di tàggu mbokki Sénégal yëpp di jéggalu ndax nit ki mën naa xalaat rek wax te fekk na xaj na la muy wax am na ñu mu gaañ képp koo xam ne liñ fi wax am na lu mu la def mu metti la ñu ngi koy jéggalu. koo ci xam ne nag gis nga ci sa bopp ne jëlee nga ca njariñ yàlla na sax dàkk di jaajëfal ñëpp di la jaajëfal yow tamit ci période bi nga xamante ne moom nga ma période fii. période mooy invitation mooy invitation. di la jaajëfal di jaajëfal itam techniciens yi xamante ne jàpp nañ ci liggéey bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama njaboot gi nga xamante ne saa yi ma jógee bàyyi leen te suma ma ñëwee tubaar fa kàlla macha allah jàmm rek laa fay fekk di ñaanal sama borom kër dama koy wax di ko waxaat. ndax dañuy wax ne bu lëg lekkee alom na ko gërëm coy lu ma mën gannaaw yàlla ak sama ñaari way jur moo tax kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë mu nekkoon kenn ci soxna yi bind ci làkku réew mi nekk taalifkat mu di soxna Kiné Faye ndax dañoo dalal ay ñoo xam ne kàngam lañ te ñu dalal soxna boo lëggee ñu seet ñeneen jataayu taalif ñu ak yéen saa ci ne ci DTV kilifa yi waral li jaa jëf ñi nga xam ñoo ngànk liggéey bi rawat na ñi nga xam ñoo di caméraman yi ñu yor wàllu montage bi ak ñi nga xam ne saa su ne ñu ñuy bàyyi xel ci talaata yi yaa ngeen jëf luñ ci juum ñu koy jéggalu lu ci baax ñu sant ko borom bi Sénégal jëm ca kanam xéewal saawaan baawaan yàlla sànguñu malaanum sutura a ngeen jëf camions, camion engin deux machines de machines buy daw tombent en panne Ce panne, nan dépanner émission les pannes dans l'automobile cette émission est donc un moyen de faire connaître au public les pannes automobiles et les véritables techniciens d'aujourd'hui compétents pour leur réparation l'évolution de la mécanisation de l'électronisation et surtout dans un contexte d'informatisation le réparateur d'automobile d'aujourd'hui ne doit pas être comme celui d'hier. Voilà pourquoi il a été créé l'émission Les Pentes dans l'automobile, bientôt sur la DTV. C'est l'émission Disso le président Mustafa Sisselon. bi politique xewee ba léegi ca du càmm ak léegi la ma fa def defoo ko fa billahi wallahi wa taala barke Serigne Touba la ma fa def bu fa barke salaatu fatiha bu dee kenn def na fa un dixième nañ ma ko wax bi ñuy dem référendum ñoo am ku leen nekk plénipotentiaire man la ñu wax ni demal ñu xam nga nekkuma ko woon waaye dama doon toog ci terrain bi di wax a gars yi di leen jéem jàpp jàppale ci lenn li mhm. léegi je suis un général xam nga loo xam ne actionnaire majoritaire nga APR man actionnaire majoritaire la maa ngi Macky Sall ñoo ci toog may may ma waxuma ndam man sama cas dafa paase ay ndamu gox dëkk bi ma attendiez, il est enfin là, le magazine Nissa. Nissa, un magazine pour nous les femmes, 100% islamique, 100% sénégalais. Dans ce premier numéro, retrouvez une enquête sur le phénomène du hijab fashion, cette nouvelle tendance dans le monde dévoilé. Le port du voile, accessoire de mode ou acte religieux. Des conseils sur l'habillement tout en respectant les préceptes de la religion, tout y est avec des références coraniques et de la sunna authentique. Qui était réellement Khadija, épouse de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam Quelle est son histoire Nissa vous la raconte sans rien omettre. Découvrez l'interview exclusive de la célèbre animatrice et prêcheuse Sorna Zeynafal. Vous aimez le miel Apprenez-en plus sur ses vertus insoupçonnées dans la plus gourmande des rubriques Miam. Envie de vous faire belle Retrouvez nos conseils pour avoir de sublimes sourcils sans aucune épilation. Avec Nissa, nous n'avons décidément plus d'excuses pour apprendre notre religion. Il ne coûte que 2000 francs seulement et vous pouvez vous faire livrer gratuitement

La 11e édition vous donne tous rendez-vous à Kolda, Vortex à Aduna. Le 2 avril 2016 à Kolda, la famille de la danse retrouve une fois de plus des battles, des freestyles et des formations de danse. Sous le haut parrainage de Monsieur Seydouane, Salisto, Chico et Hardcore Side suivi du Battle of the Year le 3 avril et d'une grande fête de la culture le 4 avril. Alors rendez-vous tous à Kolda les 2, 3 et 4 avril. Infoline 77 556 0401. 01 Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'antivieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf, Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. dimanche ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars bi wees yemoo ko bés bi àdduna doon màggal lii di théâtre ci loolee seen émission question de l'heure fas yéene tijjil buntam ay acteurs yu yëngu ci mbir moomule di théâtre ngir mën a càmbaax ana ban taxawaay la boobe quatrième art daal di am fii ci Sénégal ci waxtaan bu yaa Mansour Sow fas yéene dalal àllarba gi fanweeri fan ci weeru mars bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci guddi ay ganam mu fas yéene cee bokk Pape Faye mi jiite Arcos konoone alin Diop di taskatu xabaar buy yëngu ci aada fële ca RTS Ibrahima Mbaye Sopé it dina bokk ci waxtaan wi moom artiste comédien bi xam-xamam màcc jëm ci théâtre Alassane Cissé doon it taskatu xabaar xam-xamam màcc ci aada fare fële ca ministère de la culture et de la communication fas yéene na it bokk ci waxtaan bi àllarba gi lay doon. magazine Fanbiz vous présentez de jeunes leaders. Ils sont leurs propres chefs et touchent sur plusieurs domaines, allant de l'agroalimentaire à la mode. Qui sont ces jeunes entrepreneurs sénégalais Les concepts de Sisters of Africa, c'est la création Made in Sénégal. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de valoriser les créateurs, les tailleurs sénégalais. Comment se lancer pour créer son entreprise Vers quelle structure se tourner pour les formalités Le financement, on y accède comment Financement bi ak kayit yi comme le ma lay wax nii li ma a wax noonu pour nga am koy problème yooyu da am. clients yi léegi ñanguwuñu génn xaalis sax pour mën a di wut pour nga am il faut nga muñ. il faut nga góorgóorlu il faut nga jàpp ci ngay pour nga la ngay def mën a góor continuer. Dans le monde des affaires, c'est oui ou c'est non. Si vous ne décidez pas, vous perdez de l'argent et de l'énergie. Vous travaillez pour vous-même, vous voulez partager votre